bu daan jàngee lycée Charles de Gaulle ma mottali dafa ñun ñaar ñoo nekk jàkkay ñu ca Ndar mu nekk lu lu extraordinaire loolu daf ma boole tey ak Louga Badara maa ngi koo xam bi ñuy préparé manifestation PECMES sama rakk Bakane Seck présenté ma ko ñu wax ci téléphone avant ñuy gisante bi ñu ñëwee ñu gisante ma gis un homme pondéré gis nit ku dal nit ku am écoute ñu jël ñu ñu dem di préparer wu parce que le lan demee la noonu manifestation bi ma njëkk frappé ci ndaje moomu mooy la discipline discipline bi ñëpp am xale yëpp am jox ko badal mu nekk benn hiérarchie boo xam ne da koy xàmme loolu dañ leen koy santé parce que réew kër réew képp koo xam ne avancé nga ci discipline rek nga mën a avancé ma gisaat fi solidarité parce que ku ma fi dégg mu wax rek danañ kii ma génne kii moo ma génne kii tax ma dem ñaar ñoo yor réew discipline la solidarité joxe yar ñàkk ci naan te loolu laa gis lu doon mu am nag ca Dakar benn label bu ñuy wax jëre jëre production mu am studio am orchestre am télévision en ligne mooy kii télévision bii nii ki ko ubbi di Bakane Seck di sama rakk ñu bokk baay bi mu defee effort boobu ba ubbi loolu yëpp di percussionniste li ma man li ma mën def naa ko tëgg laa man tëgg naa ko def lii jàng ma yow nag laa jàngi lii laa koy jiite structure boobu man maay directeur bi ca manifestation ba ñu ñu ñoo def ci PNS ci la ma nekk sama comme par hasard baatam avant manifestation bi ñu am dab Italie ak Paris ak Paris tey nekkul foofa donc la Badara doon wax loolu la la toogal man maa ñëw ko mu ne ma nag boo demee delegasyon xam ne dina nekk delegasyon jëri jëri production mais nag ma waxaat sama papa Badara parce que yàgg na koy wax ni man maay taaw yàgg na koy wax ni PECNES ñoom ñoo am président vice président man xaw ma lool Badara mooy sama papa te man maay taaw ziar bi ñuy def damay ñëw en tant que taaw toog si sa bopp indi sama participation motax mu ñu di ngeen jëm ma ngi ya, ànd ak sama jarbaat Abdourahim bon yaaya ak man ni ak baatam la bokk benn baay ak ki nga xam ne moom firnde mooy Patros moom mii ñu ci dirigé production ñoo xam nee na nag lii nit nga xam ne tey moom la ko dox ñu ma la wax dara daf koy bàkkeeloo teg ko sa loxo mooy cent mille yi mu ne ma ko sa loxo pour barkeel may sant waa Louga yëpp di ñaan yàlla nag Badara lii ngay def yàlla na ngeen toog ba doom yi nangu ko ngeen toog nekk ay superviseur xale yi nangu lépp du ko def gudd na marié fi wasalaam